sëriñ Basiru moomu noon dinaa xamal ñi fi bu baax bi fi newoon ba ñépp na kenn la yow paate jëng def laa la digal wutal kayit tasoo noppee nag ma ko yoon ngi fi rasen lu yomb la audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen bilan financier mois de septembre ak octobre bu tak takku defar daarul Muxti xam ngeen dañoo baaxoo woon chaque mois ñu ànd ak ci bilan bi waaye xam ngeen ne weer yi ñu génn xawoon a bari xeetu ak ay xat ndax moo nekkoon weeru màggal gi ak gàmmo gi mu xawoon a xat ci kuréel gi ak uh, kilifa yi moo tax ñu ne woon bàyyi ba agsi fii boole ñaari weer yi leeral ko mbokk yi taaliba yi comme ni ñu ko baaxoo def dañ koy tàmbalee ci biir réew mi ñu dugg te jaar ci biir réew mi Daarul Moxti sept cent soixante six mille sept cent soixante seize mille sept cent vingt cinq uh, jóge na fa ba uh, ci njiital Sëñ Abdou Khoudoss Mbacké Touba cent soixante mille soixante cinq jóge fa ci njiital Sëñ Mourtada Balla Dakar deux cent soixante onze mille cinq cent jóge na fa ci njiital Moustapha Syll euh, numéro Orange ne bi di 77 449 47 16 18 mille cinq cent jaar na fi Vélingara dix huit mille cinq a jóge na fa ci njiital Serigne Modou Anne Casamance quarante cinq na fa ci njiital Mame Thierno Diop Daaru Salaam Diouf Mboro cinquante mille jóge na fa ci njiital Serigne Touba Diouf Saint-Louis vingt quatre euh, vingt huit mille quatre cent quinze jóge na fa ci njiital Serigne Mame Thierno Tambacounda 37000 jóge na fa ci njiital Sëñ Baara Guèye ak Soxna Jee Cissé Warafonde ak Agnam 60890 euh, jóge na fa ci njiital Sëñ ko Sobey xam naan 23000 jóge na fa ci njiital Sëñ Soubeyru Ndiaye Kidira 50000 jóge na fa ci njiital Sëñ Moustapha Lo Fimela 10000 jóge na fa ci njiital Sëñ Baara Ndiaye loolu mooy li dugg te jóge ci biir réew mi boo ko xoolee mi ngi ci 1 million 560 mille cinq cent quatre-vingt-quinze bu dee lu jógee ci bitim réew euh, Côte d'Ivoire cinq cent trente-cinq cinq cent trente-six mille cinq cent jóge na fa ci njiital Serigne Khadim ak mboolem mbokki taalibe yam fa nekkal bu dee Afrique du Sud deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-six jóge na fa ci njiital Serigne Cheikhouna Mbacké Gànnaar ak Serigne Xalla Gueye ak mboolem mbokki fa nekkal bu dee Gambie huit mille jóge na fa ci njiital Soxna Astu Ñaŋ ak mboolem mbokki taalibe yam fa nekkal bu dee Maroc soixante-six mille cinq cent jóge na fa ci njiital yaa salaam Guèye ak mbooleem mbokki taalibe yam fa nekkal bu dee Nouadhibou fii ci Mauritanie quarante cinq mille jóge na fa njiital Serigne Kosso Cissé ak mbooleem mbokki taalibe yam fa bu dee Nouakchott soixante neuf mille quatre cent bàyyi ko fa ci njiital Serigne Cheikh Ndiaye ak ñam fa nekkal bu dee Italie huit cent quatre vingt quinze mille sept cent soixante cinq bàyyi na fa ci njiital Serigne Modou Kara Diop ak Serigne Abdoul Ahad ak mbooleem mbokki taalibe ya fa nekk bu dee France trente et un na fa njiital sëriñ Cheikh Fadel bake ak sëriñ Hamzatou bu dee Espagne trente huit mille six cent quatre vingt dix huit bàyyi ko na fa ci njiital sëriñ Bolli Fall ak mbokki taalibe yam fa nekkal bu dee Angleterre euh, vingt deux mille jóge na fa jaare ci sëriñ Ismaïla Diakho bu dee Amérique cent dix sept mille cinq cent quatre vingt dix jóge na fa jaare ci Baye Mor Niang ak sëriñ Mor Diop loolu mooy li jógee bitim réew. toll ci deux millions cent dix mille sept cent neuf boo ko boolee ak un million cinq cent soixante mille cinq cent quatre vingt quinze yu ci biir réew mi dafay toll ci trois millions six cent soixante onze mille trois cent quatre trois millions six cent soixante onze mille trois cent quatre moo dugg ci kees gi ci diirub ñaari weer yi ñu ñëw ci frais yi ak dépenses yi nga xam ne kuréel def na ko ci diirub ñaari weer yi ñu toll euh, bi ñuy àgg ci màggalu Tuubaa gi xam ngeen ne xalif général des mourides Cheikh Mouhamadoul yàlla na saa borom yàggal ko fiit te wéral ko dafa sàkk woon ci mbooleem taalibe yi eh, luñ man rek ci dajale ko ci ay masque ñu ñu def ko ku gi nag eh, waxtaanoon ci bañ jëndoon ci lu toll ci diggante cinq mille masques jàpp six mille masques biñ ko jëndee itam foofu ci daaru Muxti mbooleem njabootu borom daal gi ku ci nekk rek yónnee nañ la ci la ci des itam ñu ne woon nañ ko séddale taalibe borom daal yu nekk ci dëkk bi nga xam ne amaloon nañ ñetti fan yoo xam ne dañoo defoon benn base foofu ci dëkk bi euh, waa ñoo fa nekkoon doon séddale masque yi masque yooyu nag fere nañ ci quatre cent dix neuf mille quatre cent dix neuf mille euh, waa commission propagande bi nga xam ne am nañ fa ñetti fan yoo xam ne ñu ngi doon séddale masque yi boole ko doon jox bokki taalibe yi lu jëm ci wàllum ndox ak café ñoom it Euh, seen budget mi ngi tolloon ci cent quarante et un mille cent cent quarante et un mille cinq cent yoo xam ne joxoon nañ leen ko ci loolu ñu doon amal biñ jugee ci loolu xam ngeen ne bokkoon na ci projet kuréel gi adduction doo mooy fexe ba ñi nga xam ne ay sañcaan lañ dëkk ci quartier yi gën a sori ca dëkk ba ñoom it ñu gis seen bopp te yàlla dogal amaguñ ndox ndox àggagul fa ñoom ñu fexe bañ am ndox loolu tàmbali woon nañ ko ci ginnaaw gàmmu gi weer yu ñu génn ñu ngi ko tàmbalee ci fi ñuy wax pàkki Baay Seex Xadi yi nga xam ne bañ demee fukki kër ak ñaar xëccal nañ leen ndox foofa ca quartier ba fukki kër ak ñaar yoo xam ne amuñu woon ndox tiwo bi sori woon leen kuréel fexe ba xëccal leen ndox ñu am ko noonu ñu ko tàmbalee foofu nag lañ ko bëgg a defee ci mbooleem quartier yi ci dëkk ba yëpp dañ ko tàmbalee foofu rek waaye bëgg nañ weeru jot lu mu néew néew fukki kër ñu xëccal ko ndox ci benn quartier incha allah euh, ci adduction d'eau boobu nag fere nañ ci six cent cinquante trois mille cinq cent six lañ ci fere bokk na ci projet kuréel gi itam mooy mbooleem lépp luy daara ci biir dëkk bi euh, kuréel gi dénkoon na waa commission pédagogie ak euh, waa social ñu def ab liggéey bu am solo mooy fu fi daara rek ñu dem fa xool bu ñu daara ja xool seen daara ba xool naka la soxla bu fekkee mbaarum jàngale la soxla wala basan yu yu donge yi jànge wala am ndox mu sell wala ay ay ay ay toilette wala lu mu mën doon rek kuréel gi xool la ca man mu jàppale ko ñu fas liggéey la boo xam ne itam tàmbali nañ ko te fas yéene nañ ko def ci mbooleem daara dëkk bi yëpp bam bam ba mu wër ñu ngi ko tàmbalee nag ci daara yi soxna Kunta Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne daara ju dëkk bi yëpp xam la muy daara ju mag ju yàgg ci dëkk bi bi fii mbokk yi demee itam fekk nañ ko mu amal mbaar moo xam ne tàmbali woon nañ ko ba sori ja biñ ñëwee ñu ñu ñu xool ne nañ ci barkeelu ñu baar barkeeloo ci juróomi tonni ciment mu toll ci trois cent vingt sept mille cinq cent xam ne barkeeloo nañ ko ci te dañ ko tàmbalee foofu incha allah waaye danañ àgg ba ci yeneen daara yëpp bu soobee yàlla euh, bokk na ci itam loo xam ne kuréel gi def na ko mooy magi bayti yi mooy mag ñoo ñi nga xam ne ñooy fanaanee jàng guddi gàmmo ñetti guddi yooyu mooy guddi gi ñuy gàttandu gi guddi gàmmo gi ak guddi gi koy gunge xam ne ñoom ñoo doon jàng mag ñooñu kuréel gi wutal leen ay laxasaay wutal leen ay ay ay yëre mu toll ci quarante quatre mbubb nga xam ne ku gi da ko xotti ñawlu ko jébal leen ko ci njiital sëñ Abdou Samad moo leen ko moo leen ko jébal loolu liñ ci fere mi ngi toll ci deux cent trois mille deux cent trois lañ ci fere euh, le douze bi passé waa Daaru Moxti bi ñuy dajee kër borom daaru ci assemblée générale du front amal fere nañ fa vingt mille francs entretien bi euh, garab yi garab yi nga xam ne def nañ ko ci pencum mboroom daal Moxti yi nga xam ne euh, lañ ca fere ci entretien bi toll na ci deux cent soixante quatre mille huit cent mu jëm ci ay euh, grillage yoo xam ne def nañ ko fa ak ay produits yu ñu fay def ak itam fay ña koy roose seen fay loolu mu mi liñ ci def lépp mi ngi ko xalaatee mi ngi toll ci deux cent soixante quatre mille huit cent lu jëm ci wàllu communication kuréel gi fay na ci quatre vingt onze mille cinq cent ay frais divers frais yoo xam ne ay frais yu saw sawaan la kuréel gi fay na ci trente neuf mille quatre cent lu jëm ci wàllu blog yi blog yi ñuy seddalee nit ñi ñu ciy dagg par weer moom it kuréel gi da koy defartu fere nañ ci lu toll cent quarante cinq mille loolu mooy li ñu frais ci ñaari weer yi boo ko xoolee mi ngi toll ci deux millions trois cent cinq mille deux cent deux millions trois cent cinq mille deux cent euh, boo ko mooyee ci trois trois millions six cent soixante onze mille trois cent quatre yi ñu dajale woon dafay des un million trois cent soixante six mille cent quatre euh, fekk na mi ngi def bilan mois d'août bi kuréel gi dese woon na ci keesam

bu ko defee ñuy jeexale rek ci di sant mbooleem mbokk yi taalibe yi di nekk ci biir réew mi ak bitim réew mi di rafetlu itam seen taxawaay am na am na solo lool boo ko defee di soññi sama bopp te soññi mbooleem yeneen mbokki taalibe yi nga xam ne ñëpp ñi ngi ci biir réew mi ak bitim réew ci ñëw jàpp ci kuréel gi nga xam ne kuréel gi leen rek moo ko tax a jóg ba fas yéene liggéeyal borom daarul maxti foofu ca dëkkam boobee te dëkk boobu it daarul maxti amul kenn ku ko mën a liggéey ku dul nun njabootu borom daarul maxti gi Euh, ak ñun ñi ko dëkkee ndax dëkk boo dem rek ña ko dëkkee lu fa nekk ñoo ko fa def kon nañ góorgóorlu ci dëkk bi népp nuñ bëgg dëkk ba mel ko rek bu ñu laxasaayoo doon benn euh, daañu ko daañu ko fa daañ dëkk ba dana ko mel danañ ko fa àggale incha allahu taala fu ñu bëgg mu àgg fa rek danañ ko fa àggale loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy soññee bi di woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw fu ñu mën di nekk ñu ñëw adhéré ci kuréel gi jàpp lañ ci liggéey bi xam na liggéey bi seenub liggéey la ndax liggéeyu borom daarul moxti la ñu ngi ci soñ ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Basiru moomu noon dinaa xamal ñi fi newoon sëriñ bu baax bi fi newoon ba ñëpp xam na kenn la yow paate jëng def ci bayit laa la digal wutal kayit te soo noppee nang ma ko yoon fi rasen lu yomb la